méttit yi nga xamante ni mu ngi koy dund moom xale bi le boo xoolee gémmiñ gi boo xoolee baaraam yi taqaloo boo xoolee làmmiñ bi ci biir tàggalikoowul ana kan mooy jaamu yàlla ana kan mooy accompagner xale bi ana kan moo koy jël en charge ana kan moo koy sauver anakan moo koy taqaleeg fitna wu métti wi ca yàlla allahu akbar yalla ci yalla suñ borom ay kaddu jotali la leen di jottali ci kàllaamay xalé bile nee na dal lim leen bëgg xamal moy ni ay morom mel mom gis na ni melul noonu xalé baa ngi feddal li ciono bi nga xamanteni mu ngi koy dundu bi mu juddoo ak léegi ñaari tankam ay baaraamam taqaloo benn ci ay loxoom am ñeenti baaraam ay waay ku may dimbali sonn naa ana kan moo may dimbali ngir yàlla xale bi nee na dëkkub àll ba nu jóge sori na ana kan mooy jaamu yàlla ci jaamam bile te yàlla tax li gëna metti ci xale bi allahu akbar mënuma continuer li may wax xanaa ñu won leen xale bi jamono bi jafe-jafe yu metti yi muy dund yaakaar nañ ci jëmmi Baye Sawru mi nga xamante ni képp ku mës a am tawat wala nga taqaloo wala say cër taqaloo mu woo bonne volonté yi ngir ñu sauver la ba tàqale la yàggul dara ñu tàqale bébé siamois yi way juru xale bii gis liggéey boobu Baye Sawru def ba tax mu ni Baye Sëru yaakaaruñ suñu doom ji kenn ku dul yéen waa Sow ngir ngeen dimbali ñu ci taqaleen ñu baaraamam yi Baye Aliou jëlal ma tànk yi laa ilaha illallah muhammadu rasulullah allahu akbar kéemtaanu yàllaa ngi nii ay waay lii ku mu jàngalul yàlla ay waay lii ku mu taxta delluwaat sa borom ay waay lii ku mu taxta di sa alal dimbali xale bi boo amee xool tamit jaaxal nga ma xoolal méttit wii nga xamanteni mom lay dund moy ma ngi ñaanate yalla sama borom yaakar gi wéyjuru xale bi am ba tax leena joge ko dekk bu nekk fële ci boru sokon ñew fi ci Dakar ngir yaakar yalla yaakar leen yeen ami internet yi Yalla bu seen yaakar tas ma ngi ñaan video bi kep ku ko setan yal na suñu borom jàppandal sey mbir fi ma lima li touché ci video xale bi rek moy xamna ni fitna bi mi dund dal ci gën dayo te lima ci gëna metti rek moy xalé bi tay bëgg-bëgg ay wajuram du dara lu ñu ko ak li nga xamanteni ni ñaari tankam yi waye ma ngi xol sax ni ko suñu borom bindé ci tankam yi la xalé bi sax ko ñaari tanki rek dina té mu doon handicapé moominu yalla la xamul dara motax ma ngi ñaan képp ko xamanteni ni seetaanoon nga vidéo bébé Sia mooy di Adama kawa Awa bon volonté yi ci japon bañu xey xëy Adama ak Awa ko ku seetaanoon vidéo musa kawlak jàppale ñu jëndal papay musa camion di fayal yaayam foot weer bu jot jàppale ci mbolam ka bu mën ci doon maa ngi lay wo ci kaawu xalé bi nga xamanteni momine yalla la taxamul dara ko feulé ci diwanu ñëw dakaar ngir yaakaar yàlla yaakaar leen yéen ami internet yi maa ngi ñaan képp koo xamante ni partagé nga vidéo bii yal na yàlla suñu borom tàqale la ak fitna yal na yàlla suñu borom tàqale la ak coono yal yàlla suñu borom tàqale la ak ñàkkum dépense dama jàpp ni rek xale bii li tax suñu borom bind ko ba pare tàqale yaramam bi am na jaamam yu mu nar a takkaleek fitna ginnaaw bu ñu jëlee seen alal dimbalee ko xale bi ñu taxawu ko ba jàppale ko ba mu tàqal ko tànkam yi tàqali ko baaraamam yi tàqali ko làmmiñam bi tàqali ko boo xoolee li suñ borom taqale ci jëmmi xale bi yëpp da ngay xam ne taxawaay bu am solo lay laaj moyen dëgg lay laaj. moo tax maa ngi ñaan képp koo xamante ni rek bon volonté nga maa ngi woo képp kuy borom yërmande képp kuy doomu aadama maa ngi woo ki nga xamante ni moo di yaa nday mu sëñ Fallou mi ma jàppale woon ci bébé siamois yi ba ñu xëy opéré leen di woo yaa nday Mbàkke fële ci diwaanu Touba ak waa Ndindi ak ci point net ñu jàpp ci te yàlla rek tax di woo ki nga xamante ni moo di maman Thérèse fay ci moomine yàlla bii maa ngi woo soxna nday Aminata Tall mi ngi woo ki nga xamante ni moo di yaa Fana Ndiaye nekk fële ci diwaanu bitim réew te dañuy jàppale ci kaw bu ñu mënti dugal di woo ki nga xamante ni di woo waa groupe whatsapp yi nga xamante ni ñoo ñuy taxawu ci liggéey bi lépp groupe whatsapp ñoo ngi leen di woo ci ñu partager vidéo bi képp ku gis vidéo bi daal ñoo ngi sàkku ci yow nga partager ko te lu la yàlla wërsëgalee nga jaayante ko ak yàlla taxawoo ko moomin yàlla bi te yàlla rek tax bëgg naa gën a xuus ci vidéo bi waaye ci jamono bii daal. fii ma toog uuf tu tànk bi daanaka li may yëg maag yàlla suñu borom rek ko xam ñu séparé lépp loo xamante ni cëram la duñu ci tàyyi duñu ci sonn bu ñu ko amoon mën ko xale bi tey du dellu Saalum ndax lii nii dundin bi wallaahi azim xale waru koo dund mag sax bu ko doon dund yëg ko waaye bu ñu ko téyee dakaar lan lañ koy yóbboo li nga xamante ni moo di hôpital te jàpp naa ne faj bi hôpitalu Dakar yi ñoo ci gën a xarañ rawatina waa hôpital Fann kon nag ñoo ngi leen di xaar ci ndimbal ak yërmande te yàlla rek tax ngir ñu gaaw daw Saalum jëli xale bi indi ko fii ngeen gis ñu hospitalisé ko taxawu ko comme ni ñu taxawoo aadama ak Awa ba ñu séparé leen ci jàmm ak salaam kon nag message baa ngi noonu salaamaaleykum